ñi ñu sopp daal ànd ak ñun muy njabootu président muy sama njaboot nañu jàpp ni ñun daal dellu nañu mel ni mburoog soow dañu dañu nekkoon puisque nag loolu loolu loolu loolu mooy dëgg gi loolu moo xew cest bi ñuy waxtaan ci ci njalbeen dañ doon wax yeneen xalaatuñu woon egg si fii dañ doon ay statut de chef de l'opposition dugg na fi génn na fii wante nag bi ñu xamee ni gindikoo am na gindikoo gi leer te wér kii xam na ci dara ca ca suñuy jamono waaw ñoo benn lañu woon voilà léegi nag jaar-jaar am na moo euh, Famara daf ma dénk ñaar yu ma ko ziyaare ji daf ni ma sama rak la ma la daan wax ba ñuy mbiru Abdou Diouf ak Ablaye lay wax gumba du jommi léeg-léeg <coughs> gumba du jommi que du gis li koy jommal ñi la bëgg a jommal bu ñu defee seeni pexe melal ni gisoo ko rek defal fatuus <coughs> mu teg ci ne ma <coughs> mu ne ma li ma lay dénk mooy ngeen fexe ba ràññee parce que dafa am ñoo xam ni ils ne sont contents que vous faites ne ñu ngi troubler les eaux am ñoo xam nous bu ñu xëyee suba dañuy nager dans les eaux troubles ensuite ñu nous a fexe seeni kilifa nager en eau trouble Nous ne ku pas sam ndox di ca nous boo ñu pour pour pour mu que liguey moo fi indi urgence yi bare na yi di di liguey ñepp la metti c'est une priorité une surpriorité nationale économie numérique bi ñuy wax ci adina bi suñu doomi ci la ñuy dund ca tangu Karl Marx ay économie euh, révolution industrielle lañ doon wax nous avons théorisé l'exploitation de l'homme par l'homme révolution bii révolution numérique l'homme sera presque économiquement inutile puisque l'intelligence artificielle va le remplacer dans la plupart des métiers Lolo moy li ñuy xaar a ensuite nous at ressources gazière pétrolière nan lañ koy def nan lañuy ñuy fexe ba aaru suñu bopp ak suñu réew pour que ñeneen ñoo xam ni fu richesse yooya am ñu jéem fa indi ay jafe-jafe pour teg ca loxo ñu moytu loolu donc yooyu mooy li am solo